parce que boo xoolee avant saison bi tëj ba léegi am na promoteur bu bëggoon sama combat doon ma démarché mais comme li ñuy wax rek làmb des fois adversaire yi ngay bëgg dañuy bëgg lu la gën a yomb ñenn ñi bëgg lu la gën a kawe te ku ne am na si droit quoi pour séntu leneen. moom nag xëy na moo fi saison ku ñu war a bëreel doon suñu morom te làmb booy bëree mbër nga boo bëreewul nekkatoo mbër. xam nga te ñun dañoo opté làmb am ñu nu yaakaar donc waruñu fi nekk di xaar ku ñu jox ko xam te ne làmb boole nañoo ak moom ñu mën ko ci am dañ koy def. non dafay waaw ndax ay man yeneen adversaire laa bëggoon sax mbëri dañ koo ragal waaw moom loolu la wax waaw nee na nee na bëri dañ koo ragal léegi Matar Ndiaye woo ma ma ne ko Xeeru Mor ku ma fay xaalis ma jël ko beneen promoteur moo doon démarché sama combat mais adversaire yi ko yi ma doon proposé arrangé wu ñu ma léegi moom adversaire bi tamit arrangé wu ko moo waral beneen promoteur tëgg ko combat bi ñëpp a bañ maa ngi segg ne eh, kii bu mënta daan xeeru nga na bàyyi làmb ndax xam na ma xam na samay qualité hmm. yaa xam nga te tamit li mu dëgg la ko waa man maa bokk si làmb sëñ Bas làmb moo xul dëgg man instant war na fekk may bëreeg ay ponkal si kanam barke Serigne Bamba mbaytin yóbbu ma fen maanaam jëluma ko parce que dama dama monté palier parce que mbaytin raw ma si làmb monté palier mooy nga jël koo xam te ne dalaa raw ci làmb mbaytin raw ma ci làmb defu fi loo xam te ne ko ku def 16 combats 12 victoire kooku mbaytin mënu laa raw ci làmb te boo tuddee sama tur foo ko tudd Sénégal xam nañ ma donc man mbaytin mayu ma sens ma ko dégloo si làmb dañuy ndax kooku du hmm. song kooku loxoy rek la yaakaar koo mosoo gis combat combat yi muy song yëpp dañ koy daan hmm. song na Papa Yade Papa Yade surxal ko jëlwaa mu song boobu Boy Diop Boy Diop daan ko siri jàmm gën pakate ko sànni fële hmm. deux siga ah, daan ko jël bu rëy te lu mu jàpp noonu amaana mooy musibaam li mu jàpp mooy musibaam mbaytin ñi ma bëreel ñoo ko daax a bëre ay pol bu daaru ay koña deux ñoo daax a bëre mbaytin fuuf ay ay ay petit Baye Fall ñoo daax a mbaytin fuuf ay Modou Baye Fall ay bàcc seeraas numéro 2 ñoo dàq bëri mbaytin téeméeri junni yow incha allah moom mooy bokk si lim bi lim moom moo ciy bokk waaw incha allah ko rek dinaa ko daan jël bëri incha allah ñi may kontaagal fii si écrit bi buñ duggoon écrit waaw dañuy jàngal gars yi foofu man ay big mama laay kontaagal ay RTS ay benn melo ay jiili man ay mbër yu mag laay kontaagal mënumaa ñàkk mën a bëri nekk si ginnaaw Père Ibou Diop champion d'Afrique ñaata yoon moo may waxu bëri. bu jour ba na ko dëggal. man man dañ ma tudd kilifaam nee na nag bu jëm seeraas yéex dee gaaw dee instant yi moom moo la gën a xam ne ba jour baa la quinze day tëdd man jënd naa un million billet ba pare bu yàgg billaahi wallaahi talaay man tamit un million billet laa jënd wol Matar Ndiaye nga laaj ko mbaytin ñaata ñaata bloc billet la jël mbaytin amul supporter boo gisee suma combat yi promoteur yi ma la doon wax sawaruñu si ñàkk mbooloo moo tax sawaruñu si promoteur yi moom yaa ma gën a xam ñoom seen arrangement la ñu xool man damay jaay billet man loo ma josu bloc mën naa ko jaay billaahi wallaahi du dara de waxuma pour yàq dërëm waxuma pour tutal ko mais wallaahi lazim promoteur bi dana mbéy din arrangé ma que amul mbooloo. xeeru ngor amul supporter. non instant bi instant bi daa am lu ndax mi ngi naan Matar Ndiaye man su may bëri arène nationale ay car 25000 lañ may fayoo. mu naan bu dee Ibamar ay car moins cher laay fay. géej lañ dëkk dañuy añ ba pare naan lewal deuxième ràcc soo ko dem stade. bu nekkee seen buntu kër te mbaytin ña fa ne waa koñam soppuñu ko daa am sens. moytin ñi muy daa amul ay soppe jour ba bindal téere maa ko ëpp bu dee supporter bu jour ba maa koy ëpp supporter fuuf kooku amul mbooloo ngor la dëkk de ngor dafa bëri wax moytin dafa bëri wax nit ki booy bëreeg moom da nga yem ci li ngeen séq na yem ci làmb jiñ séq mais day dugg si ay vie familiale te loolu noonu c'est personnel te bu duggee foofu noonu day dugg foo xamante ne maanaam baaxul ci moom na yem ci làmb jiñ séq ñu bëre ma duma ko daan ko mu jeex. waaw mais mais mais mais moom moom mooy moom mooy dugg sama vie privée. moom mii naan ay ay ñëw naa gàlla mbaytin sango faak lépp mu koy wax naan di ma jëm a jaxase sama gars yi munu ko. samay nit mënoo ma jaxaseeg ñoom lu leer laa la wax. mën mm-hmm. a ñooñu démb la yow maa yow làmb moo ñu boole bu jeexee jeex na kon jarul yéen nii te bu jour ba li ngay wax ni na nga taxaw dëggal sa bopp. waaw bu dee góor nga bu dee bu dee góor nga li ngay wax nii na nga taxaw dëggal sa bopp. Mm-hmm. ne waat na si yàlla nag ne daf may daan. waat na si yàlla ne daf may daan waat na si yàlla ne du reculer benn pas waat na si yàlla ne moom ëpp a ñaan ñett yi mu wax ne comme moom moo ko am man aw ma ko bu jour ba na ñëw wane ne moo am loolu. comme que moom day topp média yi rek di wax dama koy bàyyi wax ji de ba jour ba man jëf laa seq ak moom te instant bi combat bi ñëw na pare samedi semaine rek moo ci des instant jëf rek moo fi des instant wax amatul quoi. boo naree xaar mbaytin xanaa mooy ma bàyyi mbaytin mbaytin bu arbitre sifflé mu ne si géew bi ma koy gis nii dina xam ne am na problème bu rëy moo góor waxuma la góoroon tuddee moo góor hmm. waaw parce que day wax rek di wax baax na. instant dafa tiit yooyu noonu man yooyu noonu mooy loolu la bu jour ba ngay xam ne yooyu noonu amul sens maa ngi yow la ci biir géew bi. même yor na làmmiñam ne moom day ngembu na ngembu hmm. ba xam ndax moom dañ ko ngembee morso ñu ngembee ñu soleil